salaamaaleykum nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude képp koo xam ne nii abonné goo ci chaîne bi duñ def lu dul wax la nga abonné activé cloche bi bu ko defee benn suñu vidéo dootu la rawati mais surtout ngeen di liker di commenter ak partager xibaar gi dañ ko jiitale ak kan Pape Matar Sarr suñu international sénégalais pipit moom mi nga xam ne mu ngi fële ca Tottenham actuellement daaw mu nekkoon ci club bi naan Metz mu def fa jaloore yoo xam ne nii moo ko poussé à ce que ci Golden Boy année 2022 bi mën naa ni Pape Matar Sarr Sarr ah, bokk na ci sant yi mu doon nouvelle bu baax pour euh, l'équipe nationale du Sénégal dañuy dem fële ca Italie euh, Serie A wax ci euh, Juventus Turin mi nga xam ne tey jii ah, da doon football ah. mu door Sassuolo par la marque de 3 bi à 0 biwu Di Maria recrue bu bees bi ak ki ñu naan Vlahovic moom mi nga xam ne dafa doublé dugal ci penalty ak beneen bii bi nga xam ne mu ngi ko dugal à la cinquante et unième vraiment mu doon équipe boo xam ne ni actuellement ko jël ki nga xam ne nag doonoon na fi champion titre Premier League ñu naan ko Liverpool doonoon ancien club bu Sadio Mané tey jii dañ ko tenir en échec par l'ancien club de Cheikhou Kouyaté ñu naan ko Crystal Palace mën naa ni sax boo xoolee Crystal Palace moo ko mëne woon 1 comme ci premier match ba na ko Fulham mëne woon ci noonu nag ñu dem balaa soixante et minute Luis Diaz kon ni ngeen ko gisee noonu mu dugal bii bu rëy euh, li ñuul ci ñu naan ko euh, Nuno Mendes l'Uruguayen euh, moom nag tey dañ ko rose ci benn bataay boo xam ne jotoon na ko am ci biir terrain bi Liverpool daal actuellement ñu ngi ci ay guddi yu bëccëgagul niñ débuté saison bi euh, baaxul carrément Jürgen Klopp avant match bi nag mu ngi doon waxte jaaxleem ak tiitange bi nga xam ne jot na ko am ci seen début saison bi gis nañ ne kii di man Manchester City deux victoires la am ci début saison bi mën naa ni rawee na leen actuellement six points Liverpool rawee na leen du moins quatre points vraiment Liverpool actuellement moom mu ngi am deux point nag ñaari euh, match nul euh, moom la am Arsenal tamit am deux victoires am euh, six points mu doon loo xam ne nii mën naa ne Liverpool waa faaw mu dabe bu baax a baax li koy may nag mooy ko mu yeewuwaat la nga xam ne mu ngi ko doon wane rythme boobu mu indiwaat ko ci njekk ak teraanga gars yi loolu moo nekkoon xibaaru ngoon gi.